fekkee ne loolu dañ koy peese mbaa ñu koy natt mbaa ñu koy wàññi loola moom am lu toll ni moom day yomb su boobaa kon da nga koy delloo lu toll noona moom lay wax naa wa kulluma lépp loo xam ne yuusanu def na ko peese aw yukaalu wala des ko natt faxale yi kon war na ko gis lu xool lu toll ne moom ngay nattaat lu toll noonu jox ko mbaa pees lu toll noonu jox ko mbaa wàññi lu toll noonu jox ko wal xaasibu aji daan jël daawilun aji gàddu la limaa ñeel la nga xam ne xasaba daan na ko jël daan jël ëpp naa def mooy ëpp nit doole nangu alalam képp koo xam def na ko rek nangu yëfi jaamur rek moo gàddu loola lu ci xew rek moo war a fay fa in radda ndeem delloo na zalika loolee bi xaalihi ca meloom wa wala ca mbiram ma fala shay di dara xaalihi di ko war bu fekkee ëpp na nit doole ba nangu yëfam waaye nag gannaaw ba loolu dellu na ci loxoy boroom te na meloon la mel ba tey kon amul luñ ko cay fayloo xanaa yoon dana ko yar rek ba ëllëgi du ko defati rek du gis ci jaamur bu nangu yëfam rek na ko àtteka bi yar rek waaye amul nag luñ ko cay fayloo ndax na meloon la ko delloo ba mu koy delloo daal na meloon la mel dana sikku ca wa in taxayara ndem soppikoo na fi yadihi ci loxoom fa rabbuhu boroomam mu xayyarul ku ñu daan loola bay na axsihi diggante jàppam nga bi naqsihi ànd ku manqué aw taqdirihi wala warul loom am xiimata xayma ja bu fekkoon dafa daan yëfi jaambur ci doole dal koy téye ci coobare yàlla nde moom defu ca dara waaye yàllaa dogal loola soppi ko daal di manqué ne ki dafa ëppal nit doole nangu aw fasam fas wa jekki-jekki diir bay daw rek mu daal di yooy nga xam ne moom du moom moo ko ci def yàllaa ci dogal loola nga xam ne moom daal la ca xew defu ko ca kon bu ñu koy àttee dañuy wax borom ne ko bu la neexee nga jëlaat sa yëf te muñ li ci manqué léegi bu dee fasoo mu téye ko noonu ak yooyaay ba te muñ bu la neexee nga bàyyi ne soxlaatuma fas wi ñu woo ñi nga xam ne ñoo xam njëgu fas ñu seet xayma ji bis booy mu koy nangoo ci say loxo fa xayma ja toll woon rek ñu fay la njëg googa te nga bàyyi fas wi loolu yaa lu mu ci nangoo rek baax na walaw kaana doonte nekkoon a naqsu wàññi nga bi taxa dii ci jàggateem nga xuyira kon tànn loof ko ay doon ba tey fii ak fii ci ak jàppam wa ak sima ak jàpp la nga xam ne naqasahoo wàññi na ko ko waxadu xturi fa wuuteef na fii daalika ci loolee waaye daan daa bëgg wax ne bu fekkoon ne moom mi daan jël yëfi jaambur la ca xew ci sikk moo ko ca def ki fas wi nga weesu léegi moom moo ko doon dawal ba fas wa tooy daal di yooy mbaa moo ci doon sëf ba fas wa mel noonu ci bi yooyaay kon loolu xam kon wax ji gën a wóor mooy dañuy wax borom fas yu ne ko tey moom bu la neexee nga jël soo fas ba noppi ñu seet li nga xam ne moom la ci yooyaay bi wàññi waa ji delloo la ko xam day tey yow fasam ba noppi ñu seet nag yooyaay ba li xayma yi yooyaay ba ñu fayaale ko ko ni ki ñu ne moom nii ba mu ko defagul nii ba mu yooy mënoon naa jar fukki junni juróom waaye ni mu mel léegi de moom fukki junni rek mooy xaymaam soo waa kon waa ji dina ko jox juróomi junni day day jël aw fasam ba noppi ki ko daan jël delloo ko juróomi junni loolu mooy benn bi su ko neexee itam mu bàyyi nag jëm bi fas wa lépp rek noonu ñu xayma rek njëgam dëgg dëgg fu mu toll woon kere bañ koy daan ci moom jël ñu fay ko njëgu fas mu bàyyi fas wa loolu mooy tànnu ñaareel bi daa am na ñu wax ne moom bee nga wees woon ñëweemoo rek moom daal da koy jël ni mel muñ yooyaay bi wala boog mu bàyyi ñu fay ko xaymay fas rek waaye li nga wax li nga mujj wax léegi moom ci te aw fasam tañ fayaale ko ñu fayaale ko la tolloog yooy gi mu yooy léegi ci am ñu bëgg wax loolu kenn du ko mën wax ji gën a wóor nag mooy waaw des na ko mën kay jàppal rek moom ndegam ki daanoon jël moo ci def la ci xew rek moom bu neexee borom yëf yi mu jël ko ba noppi ñu seet xayma yi la nga xam ne moo ca manqué ñu jox ko ko mu boole ko yëfam yóbbu wala xallata déet njariñ lil xaasi bi ñeel aji daan jël ku nangu yëfi jaambur nag loo ci jariñu lu mu néew néew rek bis bu ko yoon di àtte da nga koy delloowaale léegi bu dee aw fas daa ci liggéey wala bu dee oto mu daa ko dawal wala bu dee kër mu daa fayu liyaas ba yépp rek bu ko yoon di àtte lépp la koy laaj ne ko fayal bu dee sax ak jur mu daa ko rat sax lépp la koy fay waya ruddu dana delloo maa la nga xam ne ak la lekkoon na ko min xallatin ci jariñ awin tafaxa wala mu jariñoo ko mu daal lépp lu mu cee jota lekk rek mbaa mu jariñoo ko ca faaw mu fay ko waxaale te war na ko alxaddu gétan in warte andeem laal na wa wala du xooti doomam ja raqiqun ab jaam la li rabbil amati ñel borom jébbéer ba yooyu jamono xam nga jaam dafa amoon mu ne nag ku nangu jaam bu jigéenu jaambur ci doole daal joteeg jaam bu jigéen ba far mu ëmb mu am ca doom ah bis bu ko yoon di atte day delloo jébbéer ba borom ba noppi nag doom ji ci waa ji am ñu ne ko ab jaam la moog yaayam ñooyee moom daal di koy jox borom jaam ba xam nga dana gis doomam ñu jaamal ko booleeg yaayam joojee jox ko moomoon jébéer ba te du ca mën dara du tee ñu géttan ko nag dañ koy géttan géttanu njaaloo boole ci waaw ndax wartoon a joteeg moom wala yoqi bu du tey li xaasibil maali ñeel aji daan alal rifuhoo bénéfice am ba xataa yarut na ba te mu delloo rësal maali capital ba xalaa rabbi ci borom ne boo nangoo wurus mbaa xaalis ci ab jàmbur di ci yaxantu nag ba am ci bénéfice kon bénéfice moom yaa ko moom boo delloo capital ba rek kenn la wax ne faaw nga joxaale waa ji bénéfice am waaye nag bala ngaa lekk bénéfice ba fexeel ba delloo jëmmi capital bu borom te it la gën mooy nga bañ a lekk bénéfice ba ndax lam bàyyi ko dafa doy waar ba tax mën naa walaw te saddaqa doonte saraxe woon na bi rëfxi ci bénéfice ba kaana kon mu nekk ahab di gën a sopp illa baadi ashaabi malikin jëm ci lenn ci àndaalay malik nee na bénéfice boobu boo ko mënoon saraxe ngir yàlla daal moo gën nga lekk ko ndax fam juddoo ci daan alali jàmbu rek di ci yaxantu ba am ci loolu dafa jaaduwut dafa gënut daal bañ koo lekk te saraxe ko moo gën wa fi baabil aqdiya ti nekk na ci buntub al aqdiya shay'un dara min hadal maana ci mili maana am na buntu ci kanam boo xam ne moo topp ci bii ngay séen bu ci àggee dana waxaat dara neen lu bokk ci mbirum daan yëfi jàmbur am na baabun li ab buntu la fi ahkaami dimaa'i ci àttey deret ya wala xuduudi ak géttan ya yi bëgg a dugg ci nag ci àtte yi tuur deret ak xeeti géttan yi mel ne géttanu njaaloog xasteeg naan sàngaraag sàcceeg yi demee noonu yëpp dañu am géttan su koy leeralaale ci bunt bi wala tuqtalu deful rey nafsun bakkan bi nafsin ci sababu rey bakkan illa bi bayinati ndara ci seere xaadiratin su di aji maandu aw bi atiraafin wala ci ak tudd tudd mooy nangu maanaam reconnaître aw bil xasaamati wala ci ngiñ la isa wajabat ndem war na bu ñu reyee nit lay tax ñu xam ne kee ko rey kenn ci yett yi lay doon benn ay seere yi maandu gën ngaa néew ñaar seere ne diw mi moo rey diw mi loolu kon sax na ñaar mooy am ku taxaw wax ne diw maa ko rey waxal ko boppam te kenn forcé wu ko ca kenn xupp ko te am naa sagoom bu baax a baax ba noppi teewul mu ne maa rey diw mii kon mu kàllaf moo xam ne am naa sagoom kenn forcé wu ko na mu wax nañ ko cay topp jàpp ne kon moo rey ñetteel ba nag mooy bu fekkee ne am na ku tuuma taq ca rey ga kon mbokki kañu rey dañuy waat juróom fukki ngiñ saxale ko tuuma joojee loolu nag mooy awbil xasaamati itaawa jabat ci yuq si mu dana giñ alwulaatu kilifa ya xam si na juróom fukk yaminan ci ay ngiñ wa yastaxiqoona te ñu yeyoo addama deret ja su fekkee tuuma taq na kenn kilifa yi kañu rey ñooy waat juróom fukki ngiñ dëgëral ci ne diw mii moo ko rey su ko defee ñu yeyoo deret ja yeyoo deret ja mooy bu fekkee karay moo tey ñu am sañ-sañu fayu ca moom bu fekkee kooku teyut ñu am sañ-sañu ñu jox leen diya wala yaxlifu duwaat fil hamdi ci deret tey aqalu lu yées min rajulay nit ñaari góor bu fekkee nag rey ga reyu tey la tey it aaji woon a waat ngir mu sax kon ñuy waat lu mu néew néew ñu mat ñaari góor waaye genn góor képp du rey lu néew néew ñu mat ñaar ñu dee ñaar dañu seddoo juróom fukki ngi ñi rek waaye mënta manqué ñaar moom wala yuqtalu te deful rey bil xasaamat ci ngiñ la ak sarul ëpp min rajulin ci góor waaxin guddi genn nee na bu fekkoon ne mbooloo ñëw sixatoo kenn dóor ko ba rey ko waaye du kompaloo nag daa tombe rek ñu dajaloo dóor ko ba rey ko mu ne kon mbokki ka ñu rey dañuy tànn kenn ca mbooloo moom nga xam ñoo ko doon sixatoo di ko dóor ba mu dee ñu tànn ci kenn rek tuumaal ko daal di waaj juróom fukki ngiñ li ñu reye leen kookee dong buñ reye kooko nag ñay des kenn ku ne ñu dóor la téeméer yar tëj lam at kon mbooloo buñ reyee nit dafa aajo woo waat kon waat ga moom kenn képp lañ cee mën a rey kon ñoom ñi nga xam ñooy mbokk kañ rey daal ñooy tànn kenn rek ca mbooloo ma waat ni kii moo rey su ko defee nag ñu rey leen kenn kooka muy fayantoo ga ñi ci des nag moom kenn ku ne ñu dóor la téeméer yar tëj lam at waaye duñu rey nag ci ngi li moom lu ëpp kenn wa innama tajibu naka dana war alxasaamatu ngiñ la te xawlil mayiti ci waxi aji deeja ne dam yi sama deret inda fulaanin nekk na fa diw day wax nag li waral xasaamatu bokk na ci ñu fekk waa ji ay pardom dem waaye seddagut ñu ne ko waaw ku la def lii ne diw de ma def lii xam nga kon diw moomee taq na kam ne mooma def lii kooku taq na ngir ay mbokkam dëgëral ni diw moomee moo def loolu nag dana aajo kon mbokk yi waa juróom fukki ngiñ dëgërale ko tuuma jooju aw bi shahid wala ci benn seere al qatli ci rey ga ba tey bu fekkoon ne am na benn seere bu maandu bu seere ne diw kat moo rey diw mii waaye xam nga mbirum rey moom day aajowoo ñaari seere kon bu amee benn seere day aajowoo mbokki kañu rey waa juróom fukki ngiñ dëgërale ko benn seere boobee aw bi shahideen wala ci yaari seere al jarxi ci jam ga su ma yaxee shirab dana dund ba xam ne daalika ci gannaaw loolee way akul te muy lekk way shirab te muy naan am na yaari seere yu maandu yu seere ne diw moo jam diw su fekkoon ne moom diw moomu daa faatu ba saasa te ñaar ñi seere nañ ne moom diw bi moo ko jam kon du aajoo waat xam ne daal dañuy daal di xam ne kon moom bu aajee ko rey rek moom waaye nag dafa faatuwul fa saasa dafa dundaat bi ñaari seere yu seere ne diw mi moo jam diw mi kookee ñu jam dafa dundaat dundaat gëm dundaat nag mooy tax ay mbokkam war a waat wane ne jam gi ko kii jam ba dóor yi mu ko dóor ci la faatoo waaye du ci leen tawat ba beneen sabab bu ko tax a dee di leemu ci teg sax ne mu lekk naan du ci am sart waaye li ñu bëgg wax rek mooy bu ñaari seere yi seere ne diw kat moo jam diw te deewul fasaasa gannaaw bu dundaat na rek dana aajowoo mbokki kookee waat ndax dëgëral ne jam gi ko kooku jam ci la dee. baa bu dee dóor waat ne dóor gi kooku dóor ci la dee te bu fekkoon ne daal daa faatu ba saasa moom kon du aajoo ay mbokkam di waat wa isa naka la ndeem ragal naa waat dañ koy firee ci wolof ndeem ñëññi na waaye mooy deltu na gannaaw rek muddaxoon dami way jiiñe deret ja xalafa kon waat al muddaxaa ñañu jiiñ xale yi ci ñoom xam si ne juróom fukk yami nañ ci ay ngiñ su fekkee ne am na ku tuuma ci taq waaye ñi nga xam ne ñooy mbokki kañu rey ñoo rawaat juróom fukki ngiñ ñoom ñu ragal a waat kon dañuy wax ki nga xam ne moom lañ jiñ rey gi moom la tuuma ci taq moom ay mbokkam di leen yéen waat leen juróom fukki ngiñ miimale ko seen bopp te set daal dem seen yoon xam ne kon moom mañ jiñ rey ga bu dee kenn wala bu dee ñaar dañuy bokk ci seen famille ba ñu waat juróom fukki ngiñ miime ko rey gi ñu leen jiñ ndax ñee nga xam ne ñoo war a waat ngir saxal ñoom dañoo ragal a waat fay la mu yëjin dem amul nag man koo xam ne yaxalifu dana waat min wulaati yi ci ay kilifa ma xaw ànd ak moom xayral mu daxaa ndare kañu jiiñ xale yi ci moom bu ne woon xayraxoo ndare moom rek lay gën a gàtt moo gën a moo gën a moo gën a gaaw mën a xayral mu daxaa xale yi wax daxoo moom rek xalafa kon mu waat alxamsiina juróom fukki yëpp bu fekkoon ne ñu war a waat ngir soxal rey gi dañoo ragal a waat ñu ne yow miñ jiiñ rey gi yow waatal miim yaag sa fami ta nga set ak famille nanguñ koo waatle xëy na wóoluñ ko ndax dañoo gis ne waa ji day waar la nanguñ koo waatle kon menn moom dong ngir mu set mooy waat juróom fukki ngi yëpp mu ci bopp na waat juróom fukki ngi yëpp setal boppam te bu fekkoon ne ay kilifaam nangu nañ koo waatle ci miim gi kon dañuy seddoo juróom fukki daal di koy waat ba mat waaye dagam ñëpp war nañ ko naaw ne kun dun la waatle nag kon moom miñ jiiñ say boobu waat ngir setal boppam waaye menn moom dong mooy waat juróom fukki ngi yëpp moom wala wit duxee doon te jiiñee foon alxatlu rey ga xalaa jamaaxatin ci mbooloo xalafa kon waat kullu waxidin kenn ku ne xam si ne juróom fukk yaminan ci ay ngiñ su fekkoon ne ñañ jiñay ga du kenn day ñaar mbaa ñett mbaa lu ëpp loolu kon bu fekkee ñoom ña nga xam ne ñooy mbokki kañu rey ragal nañoo waat ba nga xam ne ñoom ñiñ jiiñ waat miim te set moo ci des duñ leen seetli ñoom juróom fukk déedéet duñ leen seetli juróom fukk ngiñ ñu wax ne kenn ku nekk ci yéen na waat waatu bopp juróom fukk setal boppam waaye duñ leen seetli ñoom ñëpp rek juróom fukk ngiñ déedéet na kenn ku ne waat juróom fukki boppam yi wa yaxlifu dana waat minal wulaati ci kilifa ya fii talabi dami ci sàkku deret ja xam soona juróom fukk rajulan ci ay góor xam si ne juróom fukk yaminan ci ay ngiñ yenn kilifa yi nga xam ne war a waat ngir saxal ne diw moo rey su fekkee fañ ba yaatu na ba ña fa teew mat nañ juróom fukki góor kon kenn ku ndey waat benn ngiñ rek mu daal doy ndax mat nañ juróom fukk kenn ku ne benn ngiñ mu daal doy wa in kaanu dem nekk nañu nag aqal la di ko yées kusimat kon seddale xaalihim ci ñoom al aymaanu ngiñ ña su fekkee ña fa teew matuñu juróom fukki góor kon ña fa teew ni leen seetlu juróom fukk ñu seddoo ko xam bu fa ñaar nekkoon kenn ku nekk day day waat ñaar fukk juróom ñu boole ko mu juróom fukk bu fa juróom nekkoon kenn ku ne waat fukk mu juróom fukk wala tax li fu du waat imraatum jigéen fil xam di ci deret tey deret tey moom jigéen du ca waat ndax mbirum rey jigéen dooyu ca seere ndegam dooyu ca seere nag waat gi daa xaw a wecci seere moo tax moo tax góor rek ay waat ci reyub tey waaye jigéen du ca waat wa taxalifu dana waat alwarasatu way doon ya fil xatayi ci tayeeful mooy ci ñàkk tey te xaddirimaa ci kem la nga xam ne yarisoon danañu ko doon yaritoona mina diyeet ci dee ja min rajulin moo xam góor la aw imra at ni wala jigéen bu fekkee ne rey ga reyu ñàkk tey la waaye aajo woon a waat nag juróom fukki ngiñ ngir saxal ko su boobaa moom jigéen dana waat ni góor di waate te ñoom ñi nga xam ne war a doon diye ji buñ ko joxee ñooy waat te nañu ëpplante ca doon nga noonu ñu ëpplante ca li wut ngiñ ya fekkoon day góor jigéen te ñu def góor ñaar jigéen benn buñ settalee ngiñ ya ñaari xaaji ngiñ ya góor gaa koy waat jigéen ji waat benn xaaj ba wa inin kasarat ndem damm na yeminun ngiñ xale yim ci ñoom xalafaxaa kon waat ko ak saruhum gën jaa bari ci ñoom nasiban ci ëpp cër min xaa ci benn ngiñ boobee xam nga boo leen dee séddale ngiñ yi amaana nga àgg ci ngiñ boo xam ne kee da caa war a laal kee war caa laal loolu nag kon dañuy seet bu ñu doon seetli benn ngiñ ba ku ci yëppale rek ñu ki fekkoon ne benn ngiñ boo ko defoon ñetti xaaj am dana am ku waat ñaar ña am ku waat benn ba kon dañuy seet ka war a waat ñaari xaaj ne ko far faral waat lépp benn yoon wa isa xadara ndéem teew na bax bu warasati diyatil xata yi lenn ci way donn diye yi tayeeful lam yëkkun kon du nekk lëxoo ñeel ko puddun ak jaas ay yaxlifa ci mu waat jamihal aymaani mboolem ngiñ ya su ma yaxlifu topp dana waat man ka nga xam ne yatiina na dikk baadaxoo ci gannaawam te qadri nasibihi ci kem cërëm ba minal miraas ca doon nga nee na bu fekkee ne loolu daa jëra waat te muy téyeeful muy reyum ñàkk tey ten wax ne kenn ku ne daa war a waat bu tolloog ab donoom am fa ñu teew nag am ñu teewut mu ne kon ku ku teew wala ña teew dañuy far waat ngi ya yëpp yëpp mat su ko defee àtte kan mën a dogal li muy dogal bu tey gannaaw ba nag képp koo xam ne nekkul foon boo ñëwee da nga waat lu tolloog sa wàll muy boo fi teewoon da nga war a waat ba tey da nga koy waat njëkk ñu door laa jox sa wàll wa yaxlifoona danañu waat fil xasaabati ci ngiñ la xiyaaman mbir mu ñu way taxaw nee na biñ dee def xasaabatu boobu juróom fukk ngiñ yi képp kuy ngiñ da ngay taxaw dañ ko bëgg a ñàngal moo tax ñu wax ko ne ko da ngay taxaw yow mi waat wa yujlabu te def na ñoddi ilaa màkka te jëm màkka wal madinati ak madina wa baytil maqdis ak baytil maqdis ahlu amaliha ñooñ seeni jaraaf maanaam nee na sax ka war a waat bu bokkee ci màkka mbaa madina mbaa baytil maqdis dañ koy indi ba ci béréb yu sell yooyee mu taxaw foofu waate fa ndax rek bëgg bu fekkee lamuy waat wóoru ko mu ragal daal daw bañ a waat wax di béréb yu sell yoo xam ne ku xam seen àq rek da nga fa ragal a waat loo xam ne wóoru la wala yu ci la bu deful ñoddi fi xëy di xaaj yu dul ñoom illa min al amyaali dara ci ay miil al yasirati aji neew bu xësee génne daal màkka ak madina ak baytul maqdis bu béréb ba sell sell ba ñu ragal ñu ragal faa waat lu amut it moom bu jegee rek jar ñu andikoo ko mu waate foofu waaye bu xësee sori du jar ñu andikoo ko mu fay waate kon nag beneen béréb buñ fonk bu bokkut ak màkka ak madina ak baytul maqdis daal bu soriwut manees naa andi koy waat mu taxaw foofu waate fa waaye bu xësee sori say boo ñu bàyyi ko mbir yu néew yi mu wax nag am nañu koy wax ñett ci tolloole am nañu koy wax ba dem fukk sax wala xasaamata teen ngiñ fii juruxin muy nekk ci jam-jam ci bakkan rek la ñuy waate juróom fukki ngiñ yi waaye ab jam-jam moom di su ci waat juróom fukki ngiñ su yàlla dogalee jam-jam bi am na yaari seere yu ko seere moo xam jam-jamu tey la moo xam jam-jamu tëyeeful la kon seere mat na sëkk bu dee tay ga ñu fayantoo bu dee ñàkk gaa tey ñu fay diye ja bu fekkee ne benn seere rek dañ am ci jam-jam ba dañuy waat benn ngiñ boole ci rek mu daal di sax bu fekkee lu ñu teyul la ñu joxe ci diye bu fekkee lu ñu tey la ñu fayantoo su fekkee moom daa wax ni diwuma jam rek waaye amuñu benn benn seere kon nee nañu kañu jiiñ tey jekki-jekki dem du aajowoo sax mi waat am na sax ñu wax ne nag faawu day waat miim ñu door ko bàyyi wala fi xabdin du caagéenu ci ab jaam ba tey lay waral xasaamatu kañu rey day nekk gor te di ab julit waaye bu fekkee dafa nekk jaam moom kenn du ci def xasaamatu bu fekkee ñaari seere seere na ne diw mi moo rey jaam bi kon xayma ja la war a fay moo xam moo tey rey ga moo xam teyu ko ak mu xayma ca toll rek moom moom lay fay waaye xam nga ndegam moom mi rey gor la kenn du fayu ci moom ci rey gam rey jaam ba ndegam sax na ci yaari xeere rek day fay xayma ja moo xam moo ko tey moo xam teyu ko ñu dóor ko nag téeméeri yar tëj ko at boole ci bu ñu amul ñaari seere waaye am na benn seere bu góor bu maandu wala ñaari seere yu jigéen yu maandu kon sangub jàmba day giñ day waat benn waat booleeg seere sa fa teew daal koy fay xaymay jàmba ba tey du tee ñu dóor nag ka nga xam ne moom la ñu wax ne moo rey daañu ko dóor téeméeri yar tëj ko am at wala bayna ahlil kitaabi du jaageenu diggante ñooñ téere ba kañu rey bu fekkee day ku ñu fasanteel wëlëre rek waaye du ab julit waaye kam wax ne moo ko def loolee ab julit la niki ka ko jàmbaag ka ko dóor nee na ab julit moomu ko def am na ñaar ñu maandu ñu seere ne nun dey moom mii ñu jam laata muy faatu dégg na mu wax ne diw di ab julit moo ko def lii day mel ne kon julit boobee tuuma taq na ko waaye ndegam kookee moom kuñ fasanteel wëlëre la kenn du ca def xasaamatu maanaam kenn du ca waat juróom fukki ngiñ moom daal suñu mënee saxal ne julit bii moo ko rey ñu seet bu fekkee moo tey rey ga moom dong moo war a fay diyeje ci alalam bu fekkee teyu ko mook famille ba mbokk ñoo koy bokk fay su fekkee nag mënista saxal ci yaari seere ne jullit bii moo rey kooku ñu fasanteel wala rek waaye am nañ benn seere bu maandu kon kilifa kookee ñu rey bu ma nee waat benn ngiñ boole ja ñu daal di saxal ne kon jullit boobee daal ay la yewén mooma daal di ko ne fayal diye ji ba noppi tam nag ñu dóor ko téeméeri yar tëj ko am at su fekkee ne nag kookee ñu fasal wala rek wax kam wax ne ab julit moo ma def lii awisu ci jenn jenn firnde lu may waxe keseem dong la su boobaa jiit boobee kenn du ko wax dara dañ koy bàyyi rek wala fi qatilin du caajeelu ci kuñ rey bayna safay ni ci diggante yaari sàppe julit bu fekkee ne ñaari kuréelu julit dañoo tase jàmmaarloo xeex ba ay bakkan daanu ca waaye kenn ku nekk da ngaa jàpp rek ne xeex bi nga def sañ ko ko ndax dañ laa tooñ ci misaal rek ñu xëccoo suuf rek suufi maam yi rek kuréel bi wax ne noo moom suuf si ñee wax ne ñoo ko moom ku nekk jàpp ne sa morom daa bëgg a nangu sa suuf ñu fara ci jàppante ba xeex ku ca daanu ci jullit ñi dañuy jàpp ne rek bakkanam neen na ku ca daanu rek dañuy jàpp ne bakkanam neen na waaye duñ ci jéem a topp di ca fayantoo ko joxe dee mbaa dara aw wujida wala fekkeef ko fi mahallati xawmin ci bérébu aw nit bu ñu fekkal nit ñu rey ko teg ko ci bérébu aw nit ni ki dend kër diw duñu wax waa kër gi ne leen yéen a bëgg leen caa tuumaal leen waatloo dara ndax li ci ëpp mën naan keneen a ko rey ba noppi ñu teg ko fa wetu seen kër lu may nag fañ ko teg day foo xam ne ñoom waa kër gi donc ñoo fay aw waaye keneen du fa aw kon kat loola tuuma lay doon ndax ndegam fekk nañ ko moom ma ñu rey ci biir buruqi boo xam ne waa kër gi donc ñoo fa mën dem waaye fenn fu waay mën a jaar ba teg ko fa daal dana jaaxle kon loola la ni doon tuuma ca waa kër ga wa qatlul ghaylati rey gu yongu laa xafwa déet jéggale fii muy nekk ci moom yongu mooy tëru nit rey ko ndax fab alalam loolu nag bu xosee am ci béréb jàmm du fa amati kenn du xam looy dundati ca béréb boobu moo tax nag ñu ci àtte àtte bu méttee métti képp ku rey nit rey bu demee noonu rek faaw ñu rey la ndax bëgg keneen bañ a def ni nga def moom deesu ko baal mukk mukk kenn du ko baal faaw dañ koy rey moom mi tëru nit rey ko ngir jël alalam dong wali rajuli ñeel na waaja alxafu jéggale xan damihi walis deretam ja alhamdi jadi ak tey in lam yakun ndem nekkut xatt la xëylati ndi rey yongu nee na kuñ rey rey goo xam ne reyu tey la nga xam ne fayu ca karay moo ca war su fekkee rey ga du rey yongu mooy du reyu tëru ko ngir jël alalam bu fekkee rey ga nekkul rey yongu maanaam nekkul reyu xam ne ko tëru rey ko ngir jël alalam loolu amu ci kon moom mi nga xam ne mooy borom bakkan ba laata muy sedd mën na ne diw baal naa ko bu kenn fayu ci moom baal naa ko kon moom ma ñu rey laata muy sedd mën naa baal ka ko rey waxa fuufoo jéggaleem nga nag anil xatay walis tayeeful fii sulusi yi nekk na ci sulusam ba su fekkee nag rey ga ak ñàkk tey la kon xam nga ka rey die la war a joxe kañu rey nag kon balaa mën a baale day fekk mu am alal te ko seet diye ja koo ko war a joxe mat ab sulusam ci misaal bu fekkoon ne moom mi ñu rey reyu tayeful am na ci alal lu mat ñaari junni dinaar nga xam ne ki war a joxe diye bu joxee junni dinaar itam bu fekkee ñaari junni day doon ñett ñetti junni dinaar te kon xam nga su ko baalee da koo baal lu tollu sulus alalam rek ndax xam nga amoon na ñaari junni dinaar boo ci boolee junni bi ñu ko war a jox diye muy ñetti junni kon su ne baal naa ko boo seetloo lam ko baal muy diye jëm war a joxe dana mat sulusu alalam ko kon baal gi day wéy suñu ko rayoon nag rayu ñàkk tey nag fekk amul alal bu daal di ne baal naa ki ma rey day mel ni kon diye ji ko war a jox mooy alalam te kon joxe na ceer ba maanaam ku def diye ji ñetti xaaj kookee mu baal day joxe ñaari xaaj ña te bàyyi benn ba ndax day mel ne ku ko may ceerub diye ja wa in xafaandeem jéggale na ahadul banina kenn ci doom yu góor ya fala xatt la kon déetu rey kilifa ya nga xam ne ñoo war a toppatoo deret ja bu fekkee ne ay góor la ñu mbaañ sax sooti ay góor ak jigéen góor ñi bu ci kenn rek bàyyee wàllam ne moom baale na ña ca des duñ mën wax ne dañuy rey mën nañoo laaj seen wàll nag ci diye jox leen ko waaye ndegam kenn xas na baale ni ko ay doom yu góor ñoo war a taxawu kañu rey am ci kenn ku wax ne baali na gannaaw ba deret ji saxee ba noppi te fekk kooku magum jëmm la moom mi ne baali na ci doom yu góor yi mag la kon ya ci des mën nañoo laaj seen wàll rek ci diye ji waaye duñ mën a wax ne faaw dañuy rey ki rey dafa tudd rek kenn ci doom yu góor yi waaye kilifa ya nga xam ne ñoo amee saytu deret ji rek ndegam ñoo yemoo daraja bu ci kenn rek xasee jéggale ca góor ña ña ca des kenn du ca mën a dogu ci faaw ñu rey ki rey ki mu doon ay mbokk itam noonu lay doon bu kenn ca mbokk yi jéggalee rek ña ca des dañuy laaj seen wàll ca diyee ja waaye duñ mën a dogu ci faaw ñu rey ki rey moo tax mu teg ci wali man ñeel na ka nga xam ne baq ya des na nas yi buxum seen wàll mi na diyee ti ca diyee ja ka jéggale wut moom na laaj wàllam ca diyee ja rek wala xafwa teetub jéggale lil banaati ñeel doomi jigéen ya maxal banina ànd ak doomi góor ya fi doomi góor yi nekkee ak ay doomi jigéen doomi jigéen bi am kàddu bu doom bu jigéen naa man bari naa saa wàll it du tee doomi góor ya buñ dogoo ci rey ga mën a rey ba tey bu doon ay mbokk yu jigéen ak ay mbokk yu góor wax yi mbokk yu góor yi la ñuy déglu bu kenn ca mbokk yu jigéen yi waxaan ne man baale naa wala ñoom jigéen ñëpp mbokk yu jigéen yëpp maat